soxna May moom du kenn ku dul ki gën a tuuti te ñàkk solo ci ndongoy Serigne Touba yi nga xam ne bokk na ci li ko ñor euh, liggéeyal Serigne Touba ak fësal liggéeyub sëriñ Touba te it bokk na ci li ko yor fépp fu waay nekk ràññee ak mën a xajale liggéey boom am solo bi nga xamante ne bi Cheikhul Khadim liggéeyal na ko waa réew mi waa bitim réew ak waa àdduna kon booy laajte soxna May soxna May ab taalibe Serigne Touba la euh, Daarul Karim day dëkk boo xamante ne bii Serigne Modou Fatiha yi euh, moo ko sanc ci ndigalul Cheikh Massamba moom taamu woon ci bis yi ak ci guddi yi mu taamu ci guddi gi laylatul xadar di ko màggal sànq dama ne leen màggalu guddi gi day dëppook ñaari fànn muy màggal guddi goo xam ne suñ borom subhaanahu wa taala moo ko digal bépp jaam waaye ci ñu nit muy doon loo xam ne topp ndigal ak topp yoon woo xam ne suñu waajur wa jàmbaar jàmbaar ja taalib sëriñ Tuubaa ba sëriñ Cheikh Mbacke moom sëriñ moo Faty Khary daan na ko amal defoon ci liggéey bu am solo nag lool euh, yàlla suñ borom mi dara tawul def mu jóge fii bis ba dellusi mu daje guddik laylatul xadar mu dëppoo nag ak wooteek ñaan gi nga xamante ne bii dañ ko koy defal kon bisu laylatul xadar guddig laylatul xadar ñun ci waa kër Serigne Cheikh am ñaari tànk guddi gi nga xam ne suñu waajur daana ko màggal te jëlee ko ci waajuram ñu koy màggal waaye bis bi nga xam ne dañ ko ci ñaanal moom suñu waajur bi nga xam ne bis bi moo dëppoog bis bi nga xam ne moom lañ ko doon mooy bis bi del si euh, euh, làqom kon muy bis boo xamante ne bii bis bu am solo la ci ñun di bis boo xamante ne bii bis bu ñu ñor la amuñu lu dul bis bi ndax amuñu woon ku dul moom Serigne seex moom mi tax ñu ràññee te xam kii Serigne bi moom mi ñu boole it ci sëriñ bi. ni ñu ko màggalee mooy ni ab taalibe di màggalee bis euh, mooy ci jàng alxuraanul karim jàng xasida yu tedd yi seexul Khadim waaye def yëfi ndaween berndeel gan yi ku ne xam na ni màggalu koor dafa metti Euh, defaral nit ñu ndogu defaral leen ay reer waajale leen ay xëdd it waaye ginnaaw loolu jàng nañ fi yëkkati nañ fi xaside Serigne Touba yëkkati fii euh, euh, ay ay rajas yu am solo kon ni ñuy màggale bis bi mooy ni ab taalibe war a màggalee mooy saxal ko ci taarixu yoonu murit saxal ko ci ndigley sëriñ bi waaye saxal ko ci diine yonent bi sallallahu alayhi wa sallam du lu am folklore du laa mi tëgg du laa mi yuuxu du laa mi wax yoo xam ne waxu du wax yoo xam ne waxu yu dëppook bis bi la am na it ay soññe yu jot am ci biir ndax am na kilifa yoo xam ne jotoon nañ fi ñëw soññe ci bis bi maanaaw bis bi ak it soññe ci ma ko taalibe kon noonu lañ dundalee bis bi. yàlla dafa dogal ma nekkoon ci sama jur bi mu fi ne bi fi Serigne di nekk ci moom laa doon màggalee ci ginnaawam laa doon màggalee euh, woote woon guddi gi. bi mu fi jógee nag te bàyyi nu fi ñu jàpp ne dañoo war a perpétuer liggéey bi nga xam ne doon na ko def ci laa ko woote tey di du sax woote ndax fii ñun waañ la woon rek waaye dañuy ñaan yàlla at yi di ñëw ñu gën di ko woote nit ñi gën di ñu fekk si te lépp doon ay ñaan yuy fekki Serigne Cheikh fa mu nekk looloo tax ma am ci taxawaay bi ma ci am ren. Euh, laylatul xadar moom Serigne Modou Fatick xaree ko daan woote kon yàgg na ba ko sëriñ Mor Faty Khary daan woote it wéetoon na si loolu euh, ku mel ni soxna May moom Cheikhul Khadim it daan ko woote ñu ràññee ko ci lool maam ci ñaari cër ndax soxna May laa tudd ba noppi di sëtub sëriñ Mor Faty Khary kon bu ma neexee ma màggal ko ndax soxna May bu ma neexee ma màggal ko ndax sëriñ Mor Faty Khary waaye woote bi ak nii fi mbokku taalibe yi dajee muy lu am solo xëy na ren jii lañ koy doog a def comme guddi yëpp waaye guddi laylatul xadar laylatul xadar xayru min alfi shahrin waaw guddi gu gën guddi junni guddi euh, bu yëpp ceexee dafa war ku ci nekk nga damay faral di wax naan yenn saa yi prospection intérieure mooy nga toog ci sa ruq xalaat ñaaw teef yi nga def yëpp jéem a xool ci sam xel nooy def ba bépp ñaaw ñaawteef boo ma sa def nga bañ cee mën a dellu ci tuubal sa boroom ci jàll te ñaan ko mu may lag ak yaatu ba say jéego doon jéego yu rafet ci lu ñëw wax ji bëri na jëf ji bëri na ci ñenn ñi li am solo parfois dañuy fàtte suñu jëfi bopp dañuy gis ku def lu rëy ku wax lu rëy waaye bu delloo ci biir këram ba toog ci biir néegam ba wéet day xeeb boppam newaa na nga gis soxna May di ko naw fekk ne jooy lay fanaane ndax xeeb boppam ndax rus ci boppam dañoo war di bàyyi xel suñu jëmm yi di nangu suñuy gàkk-gàkk ci suñ kanamu borom nit dina rëy ba rëy ci kanamu yàlla te loolu day waar la kon nañu delluwaat xam ne li ëpp solo ci àdduna mooy jël suñu borom teg ko ci sa kanam defaraat suñuy taxawaay defaraat suñuy toogin dañoo am réew moo xam ne dafa am mag ñoo xam ne dañoo daj lu ne dañoo daj liñ naan daj nañ lu mburu dajul ci taal ngir réew mi ñu saxal fi li fi am kon nag du soxna may mooy jóge fële di ko yàq dama message bu solo bu ma bëgg a lancer soxna yi muy ñu xam seen bopp guddi yu mel nii guddi laylatul xadar maa ngi ne leen sëñ moo Faty Khary bokk na ci ñi nga xam ne ñoo ko woote Touba waaye soxna May Mundatu dafa bokk ci ñi nga xam ne ñoo ko woote fësal ko moom it jigéen la kooku du ne woon bu ma doon góor danaa. dafa xool guddi gi gën ci guddi gi mu woote ko kon jigéen ñi nañu taxawaat suñu pas-pas moytu futilité yi waaw moytu futilité yi te concentré wu ci suñu spiritualité ak ci suñu temporalité ba amal suñu dund njariñ amal suñu dund njaboot njariñ c'est très important jigéenu Sénégal danoo war a gën a jàppaat seen bopp xam ne elles sont fortes te bàyyi futilité yi bàyyi mécanisme yi nga xam ne du leen jëmale kanam. te avancer vers l'essentiel Cheikhul Khadim dafa ne Tuubaa li habdin muridin saadihin lahumu bi xidmatin aw bi hubbin aw adiyaati texe ñeel la murid ba nga xam ne saxoo na liggéey ak sopp gu wér ak ak ak joxe àddiya kon dañuy liggéey soxna may dafa am profession di xëy suba teel di dóori waar ni ko jaaykatu jën bi di defee ni ko jaaykatu naanaa bi di defee ni ko marchand ambulant bi di defee waaw loolu muy dóori waar nag di ci sàkku dagan ngir mën cee liggéeyal Serigne Touba loolu nag ànd ak bëgg ko sax kon ku dul yëngatu ci dara mën naa am nga bañ a mën dara kon ñoo ngi yëngatu ci dara xëy na looloo tax ñuy jëm a jéem dara donte kenn mënut dara ndax ku def dara Serigne bi moo la dimbali ba nga def dara waaye kenn mënut dara yéene ngay am yéene nag bu ko nit ki amee itam ànd ak pas-pas bu wér sëriñ bi da koy dimbali ba mën ko àggale. ndax fii ngeen yendoog ñun gis ngeen kër gi ni mu xatee gis ngeen nit ñi it niñ fi mbokk taalibe yi nga xamante ne bii sëriñ bi rek a ñu boole xam nga nit bu jëlee jëmmam jël alalam jël dooleem jël tempsam mu mag la fuuf te boo ko woowee mu daw sëriñ bi rekk ko man ñii fi ànd ak man ñëpp amu ci kenn koo xamante ni bii nag maay sab sëriñ ndax man du ma sëriñ bay doon sëriñ ab taalibe laa dañuy samay mbokk taalibe ndax jigéen baaxoowuñ ko sax xamee xëy na ci sëriñ. bëri ñu ma koy laaj sa taalibe yi samay mbokk taalibe lañ amoon na tey ci waa kër Serigne Touba ñoo xam ne daan nañ am ay nawlay taalibe wala ay taalibe di jigéen ni ñoom te loolu yoonoon na rek ngir jàppale leen ci seen jaamu yàlla ak ci seen xam seen bopp ak seen diine waaye ñii fi ne li ma leen wax ñu ci bëri ñoo mag fuuf te fu ma leen soxlaa ñu ñëw loolu pas-pas a koy maye ak àndandoo liggéeyal sëriñ bi ak ñu gis ne suñu àndandoo àndandoo jaayante la du àndandoo jaayante. am nga Sénégal day dëkk boo xam ne yenn saa yi nit ñi dañuy jàpp ne wax moom nit da koy war di def saa su ne raaruma boo amee loo xamante ne bii gis naa ne dama ci war a exprimer wu am na ay réseaux yoo xamante ne bii dinañ ma ciy gis ay plateformes yoo xam ne dinaa ci exprimer wu wax nag xam nga nee nee nañ dafa jooy ñu ne ko looy jooy mu ne dañ maa wax te jotut jotuma kon wax ju bëri mën naa bañ a am njariñ li am njariñ mooy fu wax jotee nga wax la nga xalaat ak na nga ko xalaatee waaye jamono ji léegi euh, deme ne noo xam ne daanaka euh, di bëri looy wax te la ngay wax du am njariñ ci yow du am njariñal nit ñi loolu amul benn njariñ Oh, mais réseaux sociaux yi dañ ko war a utiliser à bon xam la ci sëriñ bi xam la ci mbindum sëriñ bi xam la ci njàngam sëriñ bi njàngaleem sëriñ bi te moytu dàggasante bi ak ñaawalante bi ak ñaawo bi c'est très important réseaux sociaux day ay canaux yu important mais yu dangereux damay faral di wax naan da ngay gis nit koo xam ne da ngeen di xamante ci réseaux sociaux yi di waxtaan tout le temps te du ngeen mës a gisee bu ngeen gisee sax da mel ni gis nga ko démb ndax li ñu koy gis ci réseaux sociaux yi nañ jël li ci am solo. ñu jëfandikoo ko ngir jëmal suñuy mbir kanam suñuy jëfin kanam suñu développement kanam te bañ a utiliser le mauvais côté ngir di xeexante ak di nekk ci sa ginnaaw machine di wax nit ki lu ñaaw wala di wax nit ki loo xam ne buñ la ko waxoon mu naqari la wala di ko wax waajuru nit wala di ko wax mbokkum nit loolu amul solo li am solo mooy nanu liggéey te ginnaaw loolu c'est de canaux de communication nañ ko utiliser à bon ngir jëmale suñu réew ak suñuy pas-pas kanam jigéen yàlla dafa bind góor bind jigéen te lim digal góor ci lu baax da ko digal jigéen lim ko moytuloo ci lu bon da ko da ko moytuloo jigéen donc jigéen moom mooy ki nga xam ne moom la yàlla jox cërub ki nga xam ne moom la gën a fonk ci lim bind mu la ko ci moom kooku boo xamul sa bopp euh, dana jafe jigéen magasin wu suñ borom la subhaanahu wa taala la c'est un être privilégié ñii sàkkul nit ñi ay égalité booy seet yàlla dafa favoriser sax jigéen ci góor ndax def na ci jigéen lu mu defut ci góor yi laa yombi din góor du mas découvrir essence su doomu aadama jaar ci sa biir ba génn loolu privilège bi suñ borom jigéen rek la ko may kon nag bu la yàlla mayee privilège bu toll noonu ak yeneen yu ni mel da ngay fonk sa bopp te xam sa bopp te xam li la war sa diine sa ponk diine muy julli di woor def say farata yëpp ba mag muur say cër ne la ko lislaam digle néewal say wax wala suufeel say wax ci bokk ma ne ak yu ni mel am war ma ne ko sëriñ bi diglee am i teggin di déglu ndigal di jëfe ndigal bu dee am en tout cas ab taalibe nga ci sa pas-pas nga cay déglu ndigal tey jëfe ndigal yoonu sëriñ Tuubaa bu génnee ndigal dara desu ci waaw donc pas-pasu jigéen ñi mooy ñu gën a jàppante te gën a déglu ndigal ñi ci am borom kër di déglu seen i ndigalu borom kër ñi ci amul borom kër bu ñu ko amee di ko def ñi nekk ci seen kër waajur di déglu seen i ndigal waajur loolu mooy mooy tax sa pas-pas ci diine maanaam solo. kaddu mu di di sant bu baax di leen sant xëy na di sant rek sant suñ borom mi nga xam ne may nañu fekkee tal ak waaye sant Cheikh Ahmadou Bamba mi nga xam ne moo tax ñu tal ko. di sant sama waajur wu tedd wa Serigne Cheikh Mbacke moom Serigne Modou Fati Khari di ñaan bépp jéego ak bépp kaddu bu mu fi yëkkati yàlla na doon yiw ci jëmmam ja yàlla na dëkkaale ak maamam yu tedd ya yàlla na euh, Sëriñ tubaab bég ci moom yàlla na yonent bi bég ci moom yàlla na suñ borom bég ci moom waaye di sant suñu kilifa yi nga xamante ne bii tey lii yëpp buñ ko mënee ñoom la muy sama borom kër ak sama njaboot gi nga xam ne ñoo ànd ak man bis bi di sant nag kilifa yi nga xam ne teew nañ fi te mu kawee sama njortu lool. ndax boo doonee ndongo bu tuuti ñoo xam ne sëriñ Touba jur seen waajur ñëw ci sama jëmm ju xeebu ji ju tuuti ji Touba ak Daaru Karim ku ne xam ne sori na te màggal gi day xat ñu ñëw ba ci kër gi ndogoo ndoog man reera ndoog man loolu cant gënu koo kawe li wolof naan bu yemoon foofu sax neex di sant mbokku taalibe yëpp di santaat suñu boroom kër bu baax ci jàppandal gi ak yaatal gi lii nii yëpp bu xëyoon ne mën a dakk bu déwénee duma fi sax jaar. loolu laa gëm ne mooy pas-pas kon moom mi nga xam ne moo ñu may jàppandal gi ak ndigal li bañ mën koo def ñoo ngi koy sant bu baax di ko ñaanal suñ boroom euh, gën ko teg loxo te gën ko jàppale te moo am ngërëmul Serigne Touba di sant bépp mbokku taalibe boo xam ne ñëw nga tey ci sama kër màggalandoo ak man di leen sant yéen ñii nag di leen gërëm ndax suñuy kàddu bu mënee jokk ba nit dégg ko. di ko jariñoo wala mu bañ koo jariñoo seen xarala yi moom moom la sonn leen tàyyiwu leen di sant bu baax muy Senego muy euh, Sexaw gi TV ak mbokku taalibe yi nga xam ne ci wàllum presse bi jaar nañ fi tey ci suba ci wàcc kaamil bi di leen sant di leen gërëm di ñaan sëriñ bi bu ne ñun ñi ñëpp nañ ko fekkee nañ ko tal te nañ yokk ci barkeb Serigne Touba yàlla ñu am ngërëmu Serigne bi te ko amee yàlla nañ ko jariñoo te buñ ko jariñoo it yàlla bum ñu bewloo ci barkeb Cheikhul Khadim wasalaamaaleykum wa rahmatullah